si d' accord ñu ñëw ci yow yaakaar naa xam dinañu ñëw léegi ci sa cas personnel bi jafe-jafe bi nga dund mais ñàkkul ni li ñu fi wax yëpp ci longue détention cas appelant yi prison bu Thiès nga nekkoon yow euh, au moins tey prison bu Thiès am nañ ko leen représenté ci émission balaa tey moo xam naa duñ ma sànni xeer parce que ñoom nee ñun rëbës rek ak prison Dakar yi rek la wax euh, euh, prison bu Thiès boobu noonu naka nga fa gisee cas yi man parce que Sambour Samb fi ñuy wax grand cour foofu daanaka booy xool moo ëpp moo ëpp Walfadjri ok foofu yëpp ay correctionnel la correctionnel mooy ñun àtteegul Sangomar waxi noppi métti na trop trop parce que am nañu foo xamante ne bii prison bu Thiès mooy deuxième prison la plus yëpp Thiès lañu ëpp bu la neexee nga vérifier kaso yi dafa nekk ñun àtteegut kenn xamul lañu toll tribunal vingt personnes bu ñu demee benn nit lañu àtte wala ñu wala ñu renvoyé dossier bi sama cas boo ko tàmbalee dix-huit am naa ko dix 18 renvois 18 renvois am na am Moussa noté nga loolu. 18 renvois 18 renvois saa yu ñu daqaat ko. 2019 ba léegi maa ngi taxaw ba léegi attewu sama bët yi ba waaw. te ba may am 5 mois la am problème bu bët. kon dañ 18 renvois dañ xëy rek après ne la. déggoo leen ma la wax ci laay ñëw. ba may am cinq mois la la la appel national ki ma àndal chef seen la tudd garde bi. ku ñuy wax chef seen la àndal mais ci chiffre bi 18 18 renvois. dara am na jër lu ma wax lu nekkul. parce que li may wax ñu ngi may dégg nit ñaa ngi may seetaan samay mbokk ak may déglu kilifa yaa ngi may déglu te man ku ma xam nitu dëgg laa dëgg la ku teg kaa am naa 18 ans waaye te ba léegi kenn attewu jeex moo tax ma bëgg xaar maagale a intéressé ci lay ñëw mooy bi may am juróomi weer mhm. li ko waral mooy damaa xëy rek gis sama gis di wàññeeku parce que mooy fi ma lay wax correctionnel bi ma lay wax nii mu ngi mel ne cour bii nga bëgg fee nekk at bu làmp yi tàkk ko xam nga doo doo gisati ma xëy suba ne sama ba man daal sama waay sama bëti dafa nii daal du ma gis dara dafa am ma jógi nit mu saagam wala dara ma xam ne sama sama bëti kon moom problème ma xëy suba dem ci mosor wax ko mu jox ma tuufaay affaire bi gën di ku mel na tuufaay bi da ko gën a yokk ma woo sama avocat wax ko woo benn procureur bu ñu wax Abdou Khadir ma actuellement mu ngi mu ngi mu ngi fële mu ngi. kii bu kii kii Ziguinchor son ngeen Ziguinchor bu ngeen Ziguinchor waaw mu fexe ba ñu yóbbu ma Rosolaan ak sama avocat met Fati bi ma demee li ma médecin bi njëkk a wax mooy sa bët yi yow munoo am trois jours ci kaso bi bi ne ma certificat médical du envoyé naa la ko mhm. ba le ba ba ci le vingt trois décembre bi passé dañ may soog di bàyyi defaat naa ci kaso bi un an six mois bu ma ñëwee ci opération bi moom du jeex moom parce que opéré naa benn ba gisul dara gis nga weer yi ma yor nii. Mhm. plus plus kii la plus quatre xam nga kon gisutul dara ba léegi ni may waxee kat àttewu te ni ma li ma jàppee su ma la ko waxee rek loolu a nekk. luñ la li ma jàppee passé ma ne ci benn place daan sama doole de xale bu ndaw di liggéey waa ji jël ma embauché ma pour may liggéey ci àll bi. di jaay ñi may wax waa Mbuur ak may dégg waa Dakar ak may dégg ñëpp ak may dégg dara àdduna jërul ma wax lu nekkul ma xëy suba moom ci jëmmi bopp bu jox ma convocation man bi ma ko jox dama reetaan ma sawaay man nga wuy bu ngent ma dem gendarmerie bu ngent toog kii accident bi ñëw nuyoog ma ne ma ana ñi fi Babacar yebal ma ne ko man mi da ci laa bokk mun ma dem leen dinaa woo Babacar di ba yaa ngi dégg wax ji ma ñëw di sartewaat sama liggéey sa waaye ñëw ne ma yow da ngaa wujjul ma ne ko wujj na waa nee na commandant nee na la woo mu daal di kon ok demal dem xëy bi ba dem xëyee wàcc ñëwaat sa waaye dama ah soo de ma soo maa ngi jéggul ndax communication ma la jox joxu ma la ko gendarmerie moo la ko jox ma ne ko man saa yi damaa xamul affaire bi lu ko waral mun ma du mbàkk bi ne woon ci place bi jàpp nañ ko ma ne ko ah waaw loolu dégg naa dañ ko téye mais xamul luñ ko téye mun ma affaire boobu lan lay laaj ma toogaat lu mat weer bi ma demee bi ma xëy si waate comme noonu mu joxaat ma communication moom jëmmi boppam baax ki may liggéeyal mhm. ma jël communication bi delluwaat gendarmerie bu ngent fekkaat fa ka ma fekkoon mu may dégg commandant seen tudd mu ne ma ana ñu jógee ci Babacar bi ba ko maa ngi nii mun demal naa woo ma toogaat trois mois moom ci jëmmi bopp moom woo téléphone mu may dégg woo ma téléphone dama ñëwal dama laa soxla ma ñëw toog mu ne ma yow affaire Babacar dibo bi lan nga ci xam man affaire ci kan mu ne affaire place ma ne man liggéey ba ci place bu fekkoon ci place bi nga laaj man ci àll bi ma xam ko mais ci place bi laa xaw ma fa dara mm-hmm. mun ma ko yow ci àll bi nga nekk ma ne ko man ci àll bi laa liggéey yor oto mm-hmm. mun ma nu ngeen doon liggéeyee ma expliqué ne ko place bi de ñeent nit a fa ne ak Babacar bu juróom mm-hmm. mu ne ma yëngal nañoo tey Mbàkke ma ne ko Mbàkke ba moom di liggéey kay yëg naa la tey nañ ko loolu kay kenn waxatu ko moom tey nañ ko mu ne ma Mbàkke Jóob nee na bu la musaana jox facture ba pare day jël ay bagage joxaat la moom ci jëmmi boppam moom moom commandant bi mhm. ma ne ko yow waxtaan balaa neex dit fekk danga war na moo Mbàkke bu ñëw mu wax ma yan bagage la ba jox parce que place bu juróomi nit ne yori caméra nga bind facture bu leer naññi te moom amul droit joxe da koy jël jox ko nit da koy jël jox ko Babacar jëbbi boppam mhm. wala ku ñuy wax Baye Abdou wala Nday Awa mu jël facture bi vérifié ba mu mat dama sàmba jëlal nga dem jaay ma dem jaay beer bi dee ñëw ma taxawaat ñoom ñëpp ñu taxaw ma réglé jox leen seen i bagages kon place bi amee problème lan moo ci sama yoon man mhm. ñu téye ma ci at ak genn wàll libéré la te atteeguñ la kenn atte ma sama bët yaa ngi nii moom bët yi gisatul bët yi lu may gis bët yi priscar hôpital bi ma doon fat wax naa lañ ma wax faj nañ ba fii mën a yem fi lañ yem kon li ma war a def mooy ñëw ma fi nag pour yama damaa ñëw pour ñu dimbali jox ma delluwaat ma samay bët ba ma a dem liggéey daan sama doole bu tax a jóg. instant bi def. defuma dara ba ma ba léegi maa ngi ci neuf mois mënumaa def dara bët mooy nit. Hmm. donc amoo réinsertion sociale quoi. donc mu kenn ku ma xanaa si Abdou Bara Dolly. ak ku ñuy wax mu sa sëñ Moussa Diouf Moussa Diouf Lambaye ak sama mag jii ma àndal ma am Jarno ñoo may jàppale. ak ñeneen ñoo xam ne la doon tudd duñ jeex mhm. mais jàppal nit am fu muy yem mhm. parce que ñi lay jàppale tenewul la si Abdou Bara Dolly moom xam ngeen kilifa la mhm. donc fi ñu toll lan nga bëgg ñu jàppalee la ko yow lan sama bëti a gisee lunettes yi mënu ma cee gis xanaa gisoo lii boo ko soloon damay miir sama bopp bi métti ok kon fi mu toll nii lunettes ko gisee mënutuma gis wala te ko taggee wala du ma gis dara sama bëti day métti di miir ñaar yëpp mooy solution bi solution bi mooy ma damaa bëgg nit ñi ñu baax ñi fi ne ci dëkk bi ñu jàppale ma wala état bu Sénégal ah ma dem fajo ji feneen rek parce que opéré naa benn bi moom benn bi moom xalaatuma ko dindi moom hmm. parce que comme laal naa benn bi baaxut du ma laal lu ci des hmm. ma bëgg nag nit ñi jàppale ma génn dem fajo ji hmm. loolu moo indi sama problème fii te li may wax am na preuve ndax Pam Ndiaye jox naa ko document yi hôpital bi ma doon opéré mu ngi fi janatu xam nga loolu leer la néewul lu ñuy montax certificat médical bi gis nga ko at ma fi teewaat waaw mu nekk mbir mu doy waar ñoo xamante ne bii tey jii mhm. yéeme na daal ci li wax ci gàttal parce que nit ñi dañuy tuumaal nit rek yóbbu la ci kaso bi. dañ la feet xëy xëy sànni la nga génn amuloo def. Mhm. bu dee ay bët nga ñàkk foo koy waxee ji tey ji sama bëri tey ji bu ne ma gisutu dara man fan laa jëm. ci loo xam ne man man damaa teg kaamil na sama yoon nekku ci musuma def enquête ba siis bi ne ma lii wala laa. Mhm. te li ci gën a yéeme bi ma siis bi wooyee ma ñëw su ma ñëwee moo gën a yéeme bi ma wooyee téléphone damaa dikk toog. moom si ci biir kaso bi bi ma woowee enquête mm. moom i tamit commandant bi moom li mu wax dafa leer mm-hmm. moom arrêté wu ma dama sama diggante ak yàlla du ma la tëj ci kaso bi ndax li nga wax dafa leer naa dañ laa tooñëw commandant seen mu may dégg aw ma PFP gendarmerie aw ma PFP police benn siis moo ma woo xëy suba defeere ma nii ci gàttal musuma dem ñu ne ma lii dafa bula wala son mustaam bi nga dem naa fi tribunal ñaar bi ma demaatee damaa toog ba 5 heures 6 heures dégguma suma tur dégguma ko nu woo ci dossier bi ma dem ñibbiwaat te man sama wér-gi-yaram muy may jaabante. Hmm. booba léegi nag déggaatuma ci dara les moo sama benn copain laaj ko mu ne moom tamit noonu la ci toll. d'accord mais xanaa xanaa euh, euh, réinsertion. réinsertion euh, sociale après après waaw waaw waaw. repris la fi ci liggéey boo xam ne boogee mais moom déjà dafa mel ni amoon na métier sax. avant commerçant laa damay jaay. voilà donc du ma doon liggéey di am sama doole am fu ma tolloon ci réew mi yor samay bay yor lépp mais kaso day yàqal nit. Mm-hmm. ak bët yoo xam ne fu ne dem nga fa dem nga Saalum fu ne dem nga fa ma ma ne fu ne topp nga ko ba di gën di dem. faju dafa métti. du ñàkk dina am chaque yow chaque mm-hmm. semaine man danaa jënd dix-huit mille mm-hmm. barki alxuraan karim naa amaat chaque semaine ma jënd dix-huit mille ordonnance barki alxuraan eh? sama mag a ngeen di ma dégg ma am ci suñ kër lañ préparé pour jaay mm, pour. Euh, pour ñu jaay ko pour ma mën cee faju wala ma dem bitim réew Maroc faj samay bët dikkaat parce que sama bët yi ah, moom rek la am lii lii moom jar na appel quoi waaw li mu euh, franchement je crois que lii gaa waroon mën def benn appel pour ci situation bi dimbali ko am waaw waaw waaw pap même ma lancé appel solennel euh, mafia kàcc kàcc surtout Hannibal Jim mhm. euh, mi ngi may dégg depuis Canada mhm. nañu jóg taxawul lii balaa sax ay jaay kër ak yëpp du ci am. Mm-hmm. les bonnes volontés. Mm-hmm. Euh, ñi nga xamante ne ñi ngi œuvrer ci social. maa ngi ci euh, cité Dieynaba Diop bu plateforme suqali Kaolack. Mm-hmm. day jàppale lu bëri détenu yeeg prison yi foofu noonu. mais cas yi nii foog naa ne surtout les acteurs politiques comme que prisonniers ñoom duñu voté duñu wax. foog naa ne nag seen ndimbal war na yegg ba foofu noonu donc euh, waa mafia kàcc kàcc Hannibal Djim gars yi nañ. préparer cagnotte yeeg yooyu. pour vraiment parce que boo déggee li euh, sëñ bi wax nii dafa am solo. cest à booy wax nit ki reste euh, incertoire. Mm-hmm. ci lan nga koy wax jàppal tamit problème la. Mm-hmm. finalement. ils sont abandonnés te te gis nga comme ni mu amee agence yi. Mm-hmm. foog naa ne justice bi tamit war na koo war na koo mën a def. léegi léegi Samba ñi la bëgg a jàppale ku la bëgg a jokkoo ci ban numéro la la mën a jotee. sama numéro 77 la 11. répété ko. 823 77 823 90 11. aywa.